yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati ba tey itam ñu dikkaat encore ci beneen secret boo xam ne secret bu mën a maye xaalis la képp ku bëgg am wërsëg dee ko defee nii ñu la ko waxee secret bi la lan la subhanallah wa bihamdi subhanallah bi xam subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim astafurlah dafa am koo xam ne dafa amoon loolu ñuy wax euh, daax risk mooy wërsëgam dafa jafe woon ba nga xam ne daawul mën a sax joxe depense ay mbiram dëgëroon am ay xat-xat mu ñëw jooytu ko yonent bi saa salaam ne ko man de dama am jafe-jafe ci sama wàllu wërsëg sama wërsëg daal dafa jafe trop bu ko waxee yonent bi ndax euh, texte bu gudd la moo tax sax dañ ko tënk rek indi ko ci olof euh, ngir leeral ko bu mu ñëwee wax ko yonent bi ne ko sama wërsëg dafa dëgër te yombul dara jooytu euh, ko daal boppam yonente saa salaam ne ko euh, del wax lii ñu ngi ko jëlee ci ibnu omar abdullah ibnu omar te lañ ko jëlee mu ne man xaala man xaalahu baxda usaanul fajri ilaa an yaxim ilaa yaxima al muazana mu ne képp koo xam ne yaa ngi wax lii muy lan subhanallah wa bihamdi subhanallah astafurlah balaa ñuy julli fajar jëm ci fi ñuy taxawale julli suba fi noddukat bi di noddee mu ne soo ko defee suñu borom yuusawallaahu taala risqahu dana yaatal sa wërsëg lool mu ne riwaaya bi nag ñu ngi ko jëlee ci ibnu omar radiyallahu anhuma te lañ ko jëlee riwaaya bii ñuy wax yonent bi si woon na ni nit ñëwoon na ci moom wax ko ne ko dafa bëgg wërsëg mu digal ko loolu mooy subhanallah wa bihamdi subhanallah azim waxtu sëxr avant nit ki di julli suba digganteem diggante fajar ak suba fa la koy defee téeméer rek la koy def subhanallah bi xam ne subhanallah al azim astafurlah képp koy def di nga am wërsëg ba dootoo jooytu wërsëg sa wërsëg dana yomb dootul jafe eh, sa mbir tam dana yomb incha allahu taala jox waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu moo di boroom dul ku ñëw mu faj